allah qul wasaril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan buluga kamali xam nga yàlla dafa wax ci alquran qulillah summa zarhum fi xawdihim yalabuun gaa ñi lii lii lii mun yow waxal yàlla rek bàyyi leen ñoom ñuy caaxaan yàlla mooy dëgg allah te moo na am na ci nit ñu jàng di woote l'islam ñoo xam dañ ne allah allah adikru bi lafzil mufrad daganut te moom yàlla ne na qulillah xam nga lii da dem ba jaaxle yàlla ne qul am ñu ne mel ni dañ ne laa taqul kooku jarul xuloo bàyyi leen nag ki wax qul rek mi ngi mel ni ki ñuy wax ci rajo ñëpp di ko digg ci télévision ci Kaolack ci ci Dakar ne ku jàng alxuraan di ko may nit defoo dara ndax xanaa bala ngaa may dara am ca yool ndax loolu bi daal amut yoon ba sone ko jotuma ko ma yóbbante ko ne ko yónnante ne ku jàng alxuraan falahu bi kulli harfin hasanatun ma nag bu yónnante ne falahu yow nga ne lay salahu du wax ak yow ndax sa affaire la yaag moom falahu saxal la laysa lahu dàq la ki saxal mooy yonti yàlla Muhammad mi yàlla ne ko maa yantiqu anil hawa yow mi wax yaay kan <laughs> bu fekkee sa bopp ngay nax bi lay jaru ko su fekkee ne kenn la joxoon dara loo kontaanee ci foofa ma xam wallaay na nga xam ne jaru ko <laughs> jaru ko ndax wërsëg nga jot ci yonent Muhammad nee na inna ruuxal qudsi nafata fi ruuxi annahu lan tamuuta nafsun illa ida stakmalat risqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ñu bëri fàttali ko nee na ruuxul dafa ñëw indi wax yu ne mooy Jibril ne ma yàlla nee na bakkan du dee mukk te wërsëgam jeexut ci kaw suuf kon nag neen nit ñi nañu ragal yàlla te ut ut bu rafet rek ut bu ñaaw du tax pourtant yooyu dafay am na xadis yu mel noonu am na benn bés nee na ruul qudsi ñëwal te de nee na ma yaa Muhammad ahbib man chita fa innaka mufaariquhu wa amal ma chita fa innaka majziyun bi <laughs> Muhammad nga xam ne kon waxuma keneen soppal ku la neex waaye na la wër ne bés di ngeen tàggoo <laughs> dafa lu la neex mais dañ la koy fay de man ko commencé gu ma commencé gu ma ba léegi aay biñ ma sant damay damay lii mooy nuyoo rek bi euh, kon nag maanaam xéewal daw jëm ci yàlla bu fekkee ne bunt yu bari la bii bu wóor la moom jullit nga yaa ngi ci jamaa sunniya nga bëgg a yokk ñëw jël wirdo jël wirdo xam nga jaayante la boo xam ne dara gën a koo sérieux te nag dafa yomb yomb gi moo tax ñu xam ne ñépp ci war a ne ah, te xam nga lu ñëpp war a nekk dafa war a yomb du tariqa élite cheikh a ko daan bañ dafa bëgg nee na nekk rek baaban li najaati buntu boo xam ne daal ku dem bañ ubbilee bu dugg rek defaru nga ba faw léegi nag kon ñu seet ne kon ba àddina commencé jaxasoo ci nit ñi sàkki pexe parce que feebar bu amagut kenn du ko utal garab bu ñëpp meloon ni sina Abubakar Siddiq radiyallahu ak Omar ak ashratul mubashara bil ña ca topp ahlu badri nag bayatu ridwaan ñooyu ni kon kay dañuy toog nañ meloon rek waaye ñi bëgg a nekk ci biir mbooloo mi naan leen wirdo jaru ko kurus jaru ko xam nga seen affaire leerut parce que man biig rek déjà suma kurus dama ko fàtte fi ñu yendoon bi may wirdo yu yomb mais bi ma eggee ci lim bu ma war a def junne damaa jël suma téléphone ak ma lunette ak suma kii teg ba muy fukki objet su ma amee téeméer yëkkati benn teg fële kooku boo amoon kurus moo gën a yomb moo indi tarixa yi maanaam ba ba ba épidémie ba signalé ca lañ ko faj benn yoon ba léegi ku ca jàpp jazakumullahu xayran ba léegi ku ca jàpp raw nga ma dégg jàngale yoo xam ne dañ ko tënk dafa baax nit ki gannaaw bu mu nekkee jullit ba àndak ak jullit ñi di ut yàlla am na ko amu ko yëg na ko yëgu ko bu seetloo boppam axawaay liñ bari bay ñeent rek la ci am situation ñeenti situation amul juróomeel danga ko fekk mu nekk ci xéwal wala mu nekk ci nattu fekk ko muy topp walla muy moy ñeent te sax xam nga daanaka topp xéwal la xam mooy nattu la kon mi ngi mel ni dañ ko tàllal muy ñeent waaye ñaar la ñu ne nag xaal bu ci nekk ulamaa yi nee nañu gëstu nañ ko am na lu ci yàlla sant jaam bi te moo gën ci moom su demee ba nekk ci xéewal nicmatan siqat ilayhi lu ko yàlla sant awalan mooy alhamdulilahi rabbil alamina sant ko sant ko wax ko wa qul alhamdulilah sa yurikum ayatihi fa tarifunaha su yéegee mu yegg ci sant ak shukru shukru sant ak shukru mooy lan yàllaa ko firi icmalu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur yéen alu daawud kon nag ñëpp yéen seen sant jëf lay doon de kon nag sant ak alhamdulilah wax la baax na sant la kaw nu bi yëpp nga koy def yàlla sax waaye nag li gën mooy xéewal ga même bu jógewoon ci nit sax bu ca def luy merloo ki la ko jox bu dutoon diine sax ngor maalam maalam maalam may oto nga nga nga nga romb su doom muy jàng yi nga ne ko jëman fële waay ah léegi ko kay ba école sinon man nangu oto bi jox ko ko yàlla def na ko ba tey sant sant ak hamdu wala sant ak shukru benn sufiyanke daje naag beneen bu ku yeggagut ci moom mu ne ko waaw yéen yéen yéen luy seen xaal nag mu ne ko ñun kay ñi ngi buñ amee sant bu ñàkkee muñ waajur gaa ñun de balxa suñ xaj yi sax ci maqaam boobu lañ nekk daf koy wan ne nit day góorgóorlu dafa am yoo xam da nga koy romb nag mu ne ko yéen nag mu ne ñun buñ amee joxe buñ sant buñ ñàkkee sant buñ amee nuusiru jox keneen yëfital wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi yàlla tagg na leen mu ne bu ñàkkee nag muñ déedéet bu ñàkkee sant yàlla am na benn jaamu yàlla imaam Nawawi wax ju yéeg bu sew la mu ne mu ne yàlla damay tiitru ba mel ni maa ngi waaj a laal asamaan sax ndax xam naa ni lu ma mun di mel rek soo ne yaa ibaad yi rek maa ngi ci biir yéen sama jaam yi rek laaf nga ma jëm ci sa bopp loolu rek doy na ma te nag ki ma def muy sama njiit mooy Ahmed sallallahu alayhi am na jël parce que xéwal il faut nga te seetlu ko boo ko seetlu am na bés ah du ma mais da kontaan parce que xam nga su misaal bu jógee ci yow te jubloo ci dara lu ma yàlla xam nga loolu moo gën a óor dama nekk ci benn jàkk bu mag ci alamul islam yi nga ilimaani jumaa ja di ku tabarakalla muy xutba ba ci digg ba ñëpp waaru rek sama rogo yi génn ñu foog ne mooma waar dama fàttaliku gërëm baay billaahi buñ ko wàcce woon yëgal ma def xutba gu mel noonu non non mel ni bàyyi naan noppil mhm. dégg yooyu sant yàlla la sant yàlla la itam tontu la parce que am na yoo xam ne foog nañ ne boo ne sëriñ rek wax nga njaaxum xam nga lii doy na waar am ñu leen sëriñ si dañu bloqué nit ñi ban blocage yu mën nga jël sa xale di ko ba mu dem ci jàkka ji gën a mag léegi léegi nañ wàcce imam bi ne ko dafa am ngànt bu ma yéegee def bu mel noonu te xëy na moom waaj na ko te man waaju ko lii jarul sant yàlla te wàññi alhamdulilah alhamdulilah kenn jërëjëf loolu moo war a nekk si waxu yow xam naa la maa ngi lay seen foofa alors benn xaal bi benn situation bi mooy mooy nattu mooy mooy nattu daa niqmatan subbat alay natt mooy mu ne lu mu la sant mooy muñ dara tànnewu ko ca muñ waaye nag muñ am na ñoo xam ne seen muñ lu am jàmbat waaw ñooñu mooy ñi seen xol yi nooy ci yàlla waaye yàlla jàmbat sax léegi-léegi su àndee gëm caalil la ca ñaan moom léegi-léeg sax mu gaawal ñaan i man ñaan dama ci jàng yoo xam ne ma tiitoon de ko ndekete am na ñaan yu yéex am li jàmba ndekke pay ba moo moo mooy moo moo yàkkamtiwut waa ji noppi so xa bàyyi leen ba ca kanam li muy wax daf maa neex ak nag lijaaba goo xam ne lijaaba moom baax na mais ndekki am na ci yoo xam ne doy na waar eh, joxal kii mu noppi maanaam eh, jox leen kii mu noppi moom baat ba pëy ba daal neexu waaye nag yàlla daf koy may kon nag yàllaa xóor yàllaa xóor benn kii ba mooy waxtu topp mu ne la ma la ca la ca la la ci yàlla sant mooy sellal ko wa ma umiru illa li yaabudullah muxlisina lahu diina sellal ko te dafa am nu mu ko diglee du nu mu neexee waaj bu buñ ne wérdu tijaan téeméeri nangam téeméeri nangam téeméeri nangam nga sawar ba ne man dama koy def cent cinquante wala deux cent déedéet wala nga tayal ne xaaral ma def ko quatre-vingt-dix déedéet gis nga boo sonnee boo xatee bu fekkee ne am nga ngant ci sardu juróom maanaam téeméeri salaatul yi am pexe am na mooy salaatu bi boo ko wottee rek parce que da nga ñàkk pexe day baax allahumma salli ala sayyidina loo ko munee rek waaye nag na la wóor ne bàyyi nga la gën jël lu tane waaw kooku moom dafa war am lu ko waral dafa war a am cause Baay Ñas daan na wax ne soppi daraa ko war a waral bu dara xewul lu ne dafa war a mel na melo règle la salfati man sax am naa ci affaire waaw gannaaw Baay dama gënt Baay mu di ma wax ne boo yàkkamtee kay mun ngaa gàttal salaatu ala nabi waaye nag fexeel ba yoon wu njëkk waaw mujj yëpp nekk salaatul fatiha wallahi la waaye mos ngaa di sàmm ay nit ba jógee fi nekk bar sax sàmm xam kii kii mooy kii ngay wax dëgg yàlla kenn xamul loo koy wax ah, mais bu taxutoon ak kii yow li ngay def nii man damay dem ba ci mais damay yem fii parce que ah, ah, parce que parce que bugguma bugguma koo jis ci xaal boo ma taalee fii dinga ko réccu de waaw laay moom mi ngi dégg de ay <laughs> léegi léegi léegi tegoon naa Cheikh Yacine naan waay eh, waa ji ko doon contre ba mu leeral après mu ne ko eh, ni ma koy wax mu simple nii boo taxee nga foog ne toppatoo ma ko <laughs> kii da nga foog ne déggul bi moo la gën a dégg <laughs> alors sant maanaam jaamu ko nam la ko waxee muxlisiina lahu diinam bu fekkee waxtu mooy la mu ne lu may lu may tuub amu fa pexe nit buy commencé dox day foog ne yàlla mu doylu mi soxlawul sax jaamoom gi anka ah, yow yaa ko soxla yow comme tëjël li yow comme yow yow yaa ko soxla bët soxlawul daal tànk soxla hmm, mais defal ndànk da ngay jaamu da ngay tuub daw loolu nag ñeenti xaal yooyu yépp nag ku nekk ci zikru da nga ciy faf sax yow yow yow leneen nga ndax bu boole yàlla ne paskuro nii mu ne askurukum washkuru lii boo ma tuddee mu tudd la boo ma tuddee ci sa néew gi mu tudd la ci sama mën gi boo ma tuddee ci sa ñàkk doole gi ma tudd la ci sama kattan li wa al quwata lillah donc inna al quwata lillah su ma tuddee sori ma tudd la man mi teew jegeen la nga tudd ma bari bàkkaar ma tudd la man ci far yépp tudd ma ci bor yu bari ba nelawatoo ma tudd la ci bette la xéewal këyit di la jaaxal ma yombal këyit yi ba mel ni tubaab yi dañoo dof léegi yàlla mën na ko kon nag ñu daw jëm ci yàlla wazifa xadra wirdu ak suñ julli juróom yi nit ñaa ngi dox jëm ca bu njëkk ca àll ya ñemeetu ñoo sax lekk waaye Seydina Cheikh yonent bi mu ko feeñoo daf ko ne maqaama biñ la dig nii nga mel ci ngay nekk ba egg ca doo ñagas ñagaslu doo dugg ci àll bi nii nga mel bu doon tey daf ko daan basin ngay sol waaw parce que dara bu ñu la ko gàddulee bokkut ak looy gàddul sa bopp am na ñaari ñaari passage ci doxu taalube yépp ñu ngi ko déggee ci alxuraan xam nga taalube bu am sëriñ mooy al muridu maam sëñ Tuubaa moom dafa ko tuddee fab taalibeem yëpp al muriidu ci arab ba ñu bari xamuñ ne muriid du olof muriidu ku namm yàlla ak yonent bi ku ci yoonu yàlla mooy al muriidu al muraadu mooy yàlla wala nag la nga bëgg mu di la yàlla di ci kër kër yi ba soxlaa la wala yàlla léegi nag muriid moom maanaam taalibe buy góor góorgóorlu foog mu takkaayu foog mu tiit foog mu fërfëri foog mu ña waaye nag bu dee muraadu bu eggee ba nekk muraadu léegi moom dootu nekk nguuram tëjalli isra wal miraaj day ñëw ci moom mu jaaluy tëjalli isra wal miraaj mooy ba yàlla ne subhaana alladi asra bi abdihi laylan ci la ci la lay affaire bi ba mu leer mais ñu bëri seetloo ñu ndax yonent yàlla Muhammad yéeg na yéeg gaaw yéeg gu waaye nag saar yu ko wax rek déjà wax na li tax dafa sabbaal buur kattana buur bi nga xam ne moo rañaanee waxul waaxan maa ngi yéemu lilladi sara yéemu ci yonent mi rañaan ki ko rañaanee la wax léegi buildingu cent étages ci New York boo bootee sëb liir yéeg ca dañ naan liir bi mën a yéeg wala ki ko boota mën a yéeg loolu moo tax jëf ca bu rëyee fàttaliku ko ko jëf boo tax nag murid itam dana góorgóorlu ba mu nag yàlla nag kii moo tax demal ci ala salaasati alladina xulifu war a dem jihaad demuñ lay te fekk dara jotu leen mbir ma garaaw ba yonent dogu leen kenn du waxateeg ñoom xatta ida daqat alayhim al ardu bi ma raxbor ñu dem ba suuf mel ni as pukus ci ñoom wa daqat alayhim anfusum xajatuñ sax ci seen bopp wa dannu an la malja min allahi illa ilayhi ñu dem ba xam ne daal yàlla rekk ci des yàlla ne suma taaba alayhim la yàlla ne gannaaw ga nag gannaaw yooyu yëpp nag man nangul leen tuub ba pare ndax ñu mën a tub loolu du moral moraata nga noonu maanaam yàlla tegul la la nga xam ne boo ko defee mu am résultat d'accord loolooy yoon mais nag mën na la jox résultat te doo jaar foofu sax ma ngi lii tuubu kon nag ñu ne lu ñuy def lu ñuy def mooy luñ la lu la sa sëriñu wax soo ko déggee xéewal gu bees la mais boo ko déggut itam comme moo la ko digal moom lu mu néew néew bu mu yées ab docteur moom ci yow parce que dégg ko docteur di opéré nga naan ko doo ma tëralee nii doo ko dogee nii doo ñawee nii xanaa dañ yëpp sëriñ rek sëriñ bi mooy docteur bi nga xam ne dafa war a sellal sa xol bi dog sa xijaab yi bëgg loo la yàlla mm-hmm. ah ba nga ba nga ba nga ba nga ñemee sóoru gaynde te doo aventurier benn waay xam nga jaawaa ci Indonésie dañu bëri ay soufiane fi mu nii sax dañu bëri ay tijaan gis naa ci ñu bëri pass daaw ci octobre dañu bëri ay gaynde nag ruq boobu te itam bu sori xam nga miimiya euh, burda bu da daf ci am bayti yu bëri yoo xam ne dañ naan nangam lay jëriñ ma gis ku ci taarif tey bayti bu ne am na gàllaaj hmm. <laughs> waaw waaw am na mbër moo xam ne xumul jibaalu fëstan am na mu soodi moom lañ bindal kaw ko doon challenge rek mais xaw na koo rey keroog xumul <laughs> jibaalu ne bul am na affaire <laughs> am naa gars yi Tyson ñëw fi rek nga naan ko xumul jibaalu mooy dem ñu koy daan dégg nga alors wàññi bi ñoom dañuy wax foofa ne bu la gaynde bettee seen àll yooyu soo waxee benn bayti ci burda rekk gaynde ga du la mënal dara in talqahul ustu fi ajaamiha tajri waa ñu nag gis gaynde gi tiit fàtte bayti yi fàtte boobee bu naan burda burda burda gaynde ga daw ma ne ko boo waxoon bayt bi gaynde gi day dee burda mooy turu xasida yi mi ngi mel ni ku genn gaynde bëgg a nga am fetal naan fetal fetal mu daw bu <laughs> tiroon mu doy waar xam nga moom la wa moom la woykatu olof ba wax ne xam nga Seydina Cheikh dafa wax di ñu bégal ci tariqa bi di wax ne maanaam al baydatu minna bi elfin wal farxu lam yu qawam hmm. mu ne ci ñun biir ci biir tariqa mu ne cuuj mu ne suñ nen junne lay jar hmm. mu ne moo tax suñ cuuj kenn xamul valeur am waaw suñ nen junne lay jar xam waaw xaaj ci Mauritanie al aarif billahi nee na waaw bayda bi mooy ku dugg te amagoo benn zooq amagoo benn fatxu amagoo benn maqaama bees yaa ngi brut yaay leen bi fa baydatuha tubaaw aqibi alfin walay fa baydatuha tubaaw aqibi alfin fa maalil faari fi baytil kalam voilà mu ne dafa ne albaydatu minna bi alfin wal farxu lam yuqawam ñun suñ nen junne lay jar kon nag suñu cuuj kenn mënu koo évaluer Baye Omar Thiam biñ ne la Omar gata gata moom moo ko tàllal ci woy waaw mu ne nen bu jaree junne xalaatal cuuj ba te xam ne kon seq ga mooy million ba <laughs> sa ci biir saalum la ko woyee cest à moo di maanaam mbir su xasee baax ka ca dugg bees ak ña ca yàgg ak ña mujj ñëw ñoom ñëpp ku ne da ngay am cir ndaxte kañ lañ taal cuuraay bi xam nga amul solo ci ñi daje ci néeg bi nature cuuraay mooy xeeñal ñi fi ne ba bu ci amee ku mere borom kër gi du tere mu xeeñ moo am ci zikr zikr mi ñu jógee moo ci am ci xadis yi wér la wér wér yonent yàlla Muhammad nettali na saaba yi alayhi salaatu wasalaam ne leen yàlla dafa am malaaka sayaar yi ñoo xam ne dañuy wër rek ñoom seen mission mooy gis ñu daju di tudd yàlla rek ñu teew fa buñ ñëwee def rapport kii xadis bu neex la sax mu ne buñ ñëw yàlla ne leen mu ne yàlla laaj leen te fekk moo gën a xam kon nag pour ñu jot cee tax gis ngeen lu ngeen leen fekk mu ne dañuy lay tudd hmm. dañ ma lu ñuy lu ñu luñ bëgg mu ne bëgg nañu aljaana mu ne mu ndax gis nañ ko mu ne ah déedéet mu ne buñ ko gisoon nag ñu ne xam ne ki kon gañu gën koo bëgg lu ñuy ñaan nag ma musalee ñu safara mu ndax gis nañ ko mu ne déedéet mu buñ ko gisoon mu ne xam naa dañ ko gën a daw mu ne ko seede leen yéen ñëpp ne jéggal naa leen ñoom ñëpp ñu ne ko eh diwoon fa fa dafa rek moom ñooñu ñooñu dañ ñëwoon ngir yàlla mais diw moom dafa romb rek dafa am soxla yàlla mel ni ku ko naan qu'importe humul qawmu laa yashqa bihim jalisuhum yàlla ko def ñooñu ñi lay ku toog ak ñoom rek doo texee àddina tubaab bu romb fële léegi ma séen ko xaw ma fu mu jëm bu jàddoon fii rek ma dugal ko aljanna ah. yonent ko <laughs> humul qawmu laa yashqa bihim jalisuhum mhm. am na nag ñu jafeel barke am na ñu jafeel ngir mane yàlla am na ñu jafeel dugal yàlla am na ñu jafeel nekk jullit am na ñu jafeel jege yàlla buñ ci jubloo ñëpp lu baax waaye buñ ci jubloo xatal buñ ci jubloo xatal déedéet parce que dafa am ku mos a ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw rek moom ne allahuma irhamni warham muhammadan wala tarham maana ahadan yàlla yàlla nag ma yërëm boppam lu njëkk ñaar kat